jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu leen di nuyu yéen sunu mbokku euh, auditeurs yi ak euh, sunu mbokku euh, auditrices yi mbokk yi tey ñu dellu am mbégte dellu si ci seen émission pencum réew mi. muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou moom Seck Mamadou Diawa Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité. Euh, monsieur le ministre Pape Diouf mu nekk mu jiite nag euh, mouvement euh, pour la démocratie et la république muy MDR moom nag mu bokk ci mouvance présidentielle maanaam benn bokk yaakaar moom la ñu fas yéene waxtaanal ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum actualité politique ak lu ñeel Sénégal monsieur le ministre ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëñ Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di la baloo ak di baal ak ñëpp. waaye di nuyu itam ñi nga xam ne ñëpp ñooy leen di déglu. Mm-hmm. di ñaanal leen rek comme ni ma ko defal ba ma fa jaare aussi parce que wax dëgg yàlla da ngeen may invité. Mm-hmm. kon ma amaat mbégte bu baax a baax a baax euh, nara a euh, waxtaan ak yéen. di ñaan rek euh, yàlla na yàlla def ka léegi li ñuy waxtaanee njariñ génn ci pour pour réew mi. la cay topp rek mooy comme dañoo génn ci weeru koor weeru tedd ah ma jaare ci rek aussi nuyu leen balu leen àq. balu ak sénégalais yépp waaye tam ñaan euh, koor gi nu génn yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla wàcceel xéewal yu romb bari Sénégal. jërëjëf euh, monsieur le ministre Pape Diouf euh, yow yaa jiite mouvement pour la démocratie et la république MDR bi nga ko taxawalee yàgg na jamono ji tey lan nga ci mën a wax ci seeni activité ak lu jëm ci démarche yoo xamante ni tey fas yéene ngeen ko def. waaw Abdou Khadre bien vrai que aussi ci benn bokk yaakaar ngeen bokk. waa waaw Abdou Khadre dinaa am mbégte trop topp euh, leeral wax boobu ndax euh, MDR mouvement pour la démocratie et la république mouvement lañ ko mais parti la. parce que am na ñu am nañu récépissé. Euh, depuis 2017. depuis 2017 depuis 2017. xam nga rek ma dellu si lenn rek sama passage ci réew mi. Mhm. bi ñu àndee Idrissa te ñu tàggaloo am en 2013 2013. donc damaa consulter sama base ñi nga xam ne ñoom laa mas di ci politique. ñu ne ma daal bu fekkee ne président Macky Sall euh, nangu na continuer liggéey ak yow. waaw euh, continuer liggéey waaye nag pour bokkati ci benn parti na nga taxawal parti ci lañ ah, taxawee. sa base politique moo xam politique. te damaa wër ci yoo leen ay mission lu mat ñaari weer ci département Bambey ak fu ma xam ay nit fii ci dakaar dajale fii euh, sama mbokk yépp laaj leen. ñi ci ëpp waxuma ni ñëpp waaye ñi ci ëpp ne ma jot na nag nga samp dara benn Bokk Yaakaar nag bu ci génn bu fekkee ne président Macky Sall mhm. continué liggéey yow ca la waxee noonu ah loolu tax ma jébbal ko président Macky Sall. ñu ànd ca. loolu moo tax nga taxawal ko 2017. 2017 lañ donc taxawal nañu ko 2013 2014 mais nag 2017 laa soog a am récépissé. ah 2017 2017 la ñu am récépissé. kon donc mouvement pour la démocratie daal di la. Mhm. bu am. récépissé donc existence légale. kon maanaam daal jógoo rek euh, taxawal MDR. mais euh, say nit ñoom ñoo la wax na la euh, jot na nga taxawal parti politique. waaw loolu Abdou Khadre moom moo koy wax ci rajo xam ne dinañ ma dégg comme ni ma la waxee ay mission laa yónnee ci département Bambey yëpp fu nekk ñoo fa am ma laaj leen. mbokk yi ma fii ci Dakar ma dajale leen fii ay yoon déglu leen nag. fi ki ñu àndaloon tàggoo nañu lan la ñuy def loolu moo moo doon question bi. Mm-hmm. ku ci nekk wax ci la nga xalaat ba ñu noppi wax di yàlla ñu ëpp ëpp ëpp lii lañ ma wax desal ci bennoo waaye nag créer loo xam ne lii say bopp lay doon muy parti politique. d'accord loolu lañu def. d'accord ah, léegi euh, MDR yaa ngi ci biir mouvance euh, présidentielle euh, est-ce que yaa ngi waajal ay activités ak tey ndax am na benn animation. Euh, activité animation politique boo xam ne euh, am na ci sa biir parti. wax nga dëgg am na ay jamono nag tàmbale woon nañu sax bay jaay ay carte wante yu bari doog jaar fii élection présidentielle euh, Covid bi jaar fi torox torox yu bari jaar fi moo taxoon wax dëgg yàlla. activité yu bari ñu mais nag fii nu toll incha allah weer wii ma lay wax. fekki fan. danañu déggaat ñu jóg nag yëngu ci fépp foo xam ne fii parce que am nañu nit partout am nañu nit fu nekk Sénégal am nañu fa ay nit. dinañ jógaat nag yëngu pour ñu xam ne que parti bi mu ngi fi te lam bëggoon ba tey mu ngi ci parce que ba ma koy créé dama leen ne mer taxul ma créé ko. Mm-hmm. waaye dafa jot ci man sama parcours politique ma am parti politique ak ñi ma àndal. Mm-hmm. lu ñuy wut ci réew mi nag nu bokk ci. mais est-ce que amul ay interpellation yu si euh, say ndaw euh, wala ñu bokk si parti bi def euh, ginnaaw tekk tekkaaral boobu. waaw du ñàkk du ñàkk tey sax ci mujj. ndax euh, samay àndandoo ñu bari dañ ma ne euh, damaa tey trop damaa noppi trop loolu nag euh, du ñàkk fayda du ragal te que rek comme ni may waxee rek da di man bëggumaa wax tey weddi sama bopp ëllëg moo tax may waaj li may wax bëgguma aussi di wax loo xam ne dañu yaakaar ne damay wax lu merloo nit wala lu neex nit li may wax dama ko gëm mën naa juum nag hmm. waaye nag duma ma tëb tëb rek di wax pour lu neex nit wala lu naqari nit moo tax samay wax bariwul. même bi ma nekkee ci gouvernement yi ma nekkat ku neex mën naa seetee ne bu fekkee ne bokkutoon sama liggéey wax yu bari daaw ma ci bokk. que am na yoo xam ne mënuma ko. mënuma wax lu ñaaw. mënuma xas doomu aadama. mais nag da ngay am na at damay politique damay politique waaye nag waaw waaye waaw loolu dëgg la moom loolu dëgg la te yaakaar naa ne loolu dina am léegi bu soobee yàlla. am nay programme yu tracé yoo xam ne fekki fan bu soobee di nga ci jot ak ñeneen. ñu xam ne mouvement pour la démocratie mu ngi fi. Uh-huh. am na ñu ko gëm am na ay ndaw ak mag yu ci nekk yoo xam ne ëllëg si biir dañ leen dégg. parce que uh-huh. dañoo bëgg a taxaw ci réew mi nag. Uh-huh. comme ñëpp. d'accord jërëjëf euh, monsieur le ministre Pape Diouf mbokk yi moom mooy njiitul euh, mouvement pour la démocratie et la république mu bokk ci mouvance euh, présidentielle monsieur le ministre jamono ji tembe ñoo ngi wax lu jëm ci wàllu dialogue politique bi nga xam ne président Macky Sall. Euh, discours à la nation euh, wax na ko ubbeeku na pour dialogue fedd korite gi nee na ñëw leen ñu waxtaan ñu dialogue waxtaani réew mi euh, waxaat na ko ci beneen émission bu mu def ak suñu yeneen naataango conseil des ministres aussi waxaat na ko woote boobu président Macky sàll woote dialogue yow ban gis-gis nga si am waaw avant déclaration bi sax Abdou Khadre defoon naa benn interview ci sa Euh, naataango yi l' observateur booba sax président defagul déclaration. la ma jàppoon mooy euh, waxtaan mënta ñàkk. te la ma ci yokkoon sax moo di ne damaa dellu siwaat ci dialogue bi amoon 2019. ca jamono jooja damaa bind sama page Facebook ci ba ñu koy def ne dialogue bi ñuy def bu ñu ko yemale rek ci homme politique yi na réew mépp bokk ci biir kuréel yi nañ koy organiser nag ñoo xam. mais na kuréel Sénégal yëpp bokk parce que jàmm bu amee ñu ñëpp ko bokk bu ay amee ñu ñëpp ci suñ kaw lay wàcc kon laaj na ñu bañ a rek jël politiciens yi nga xam ne ils sont yeneen Sénégal yi leen ëpp pourquoi nag ñu mën nag minorité di wax rek ci turu ñeneen ñi bu fekkee ne mën nañoo taxawal ay kuréel yoo xam ne mën nañoo fexee ba nit ñi ñi ci ëpp Sénégalais yi wax seen xalaat ci liy doxee réew mi ak lu koy jëmee kanam loolu war nañu ko def moo tax ma ne leen bu ñu am date bu ñu limité wu nañ jël temps bi ko bu mu laaj pour que bu ñu jógee néew ma lépp réglé waaye nag dina am lu bari loo xam ne dina féete suñu ginnaaw la ma ci yokkat moo itam ne aussi li ma xam ci sama xam-xam ak li ma fekkee mooy Afrique ak Sénégal li fi indi coow lu bari mooy problème élection élection nag lu tax coow du ci ñàkk waaye nag am na yoo xam ne bu ñu ko ci bëggee mu néew nañu fexe ba code électoral constitution ñu bind ko ci leer loo xam ne amul werante te loolu mën naa nekk demal naa ba sax ne pourquoi du ñu traduire loolu ci langue nationale yi def ko wolof def ko joolaa def ko pulaar ba nga xam ne joola bu nekk Fuuta wala nekk euh, Tambacounda mën a boo xool déglu mën na nangam constitution bi lii la wax parce que souvent dañ naan peuple souverain le pouvoir est souverain te pourtant peuple dañ leen dugal loo xam xamuñu ci dara parce que constitution article bi ñuy warante lan la ci peuple bi xam. ñu ëpp xamuñ ci dara. xamuñ ci ñu ëpp xamuñ ci dara te bu ñu yogee ne le peuple est souverain te ba balaa nga koy def dangay xam li ngay wax ak fi ngay teg sa tànk. kon nañ yee nit ñi nañ yaatal dialogue bi nañ waxtaan waxtaan nag. bu fekkee ne juyoo amul waxtaan du am. mais mais fan nga tegoon ne dañoo war a waxtaan lan nga gisoon ne dañoo war a dialogué. mais damaa gisoon ku nekk di tiire sawet ak sayt ak eh, ay wii may séentu Abdou Khadre yàgg naa ci Sénégal de yàgg naa fekkee aussi ci affaire politique gis naa fi ay yu baree bari yoo xam ne politique indi na ko kon loolu laa gis ba ne nañ waxtaan parce que lii ma gis ñii di bàkku fii ñii di jaay doole fii du indi jàmm. ñi naan force restera loolu yëpp ay wax la yooyu yëpp. andiwul jàmm andiwul jàmm bu ku nekk di fëgg sa mbagg ku nekk yëg sa dënn ker bu nu jaamaarloo bu nu ci jógee ku ne dina rëccu lu ñu taxaw ni dugg ci. ku ne naan confrontation. confrontation may cité par exemple parce que démb rek ma wax la xew Soudan. xawoon Côte d'Ivoire gii lan moo ko indi xëccoo bu ñàkk fayda boo xam ne ay doomu aadama ñaari doomu aadama wala ñetti doomu aadama la concerné tey généraux yi ci Soudan. waaw ak paramilitaires yi. ñu ngay waxtaan fi mu nekk ñu commencé waxtaan ñaata mort 500 mort juróomi téeméer nit dee nga soog ne nan leen toog waxtaan bu tàmbal man na waxtaan war naa jiitu kon man dialogue bi Abdou Khadre dama koy wax waxuma ko pour ma sàmb pour ma demba ci réew mi laa dëkk am naa fi njaboot te bu ma sañoon man ak sama njaboot nekk jàmm kon nan waxtaan les lenn lu ñu mënta waxtaan amul lii ñu wax naan. yooyu yëpp ma na koo teg ci taabal ji man kat d'accord naa nu toog waaye nag nangam ak nangam bu amul nangam ak nangam keneen nangam ak nangam ñu waxtaan bu boobaa ku xam ne lii ñuy wax su amul jàmm du am mais di nga dellu ginnaaw nga dellu ginnaaw waaye nag. bu ko mais mais mais euh, monsieur le ministre boo wootee jàmm tamit il faut nga wane luy tax nit ñam am confiance pour ñëw si jàmm ji. waaw waaw mais woote mais woote bi déjà euh, mbir la benn pas la kaay li ñu waxtaan. ñu ne ah deuxième pas. deuxième pas bi mooy ah comme dañoo bëgg a waxtaan yu ne ah am na loo xam nag il faut ñu teg ko ci suuf ñiy wax lu ñaaw di wax bàyyi ari ko ñi ñuy jàpp ñu arrêté. ñu dugal ci kaso bi ñenn ñi def ni kaso bi fekkee ne ñu war a génne pour dialogue bi am mais euh, Abdou Khadre en 1900 euh, ban loi d'amnistie loi loi Ezzan. lu ko jiitu sax en 91 91 jàppuñu fi ay rebelle euh, euh, amnistié leen mm-hmm. ay rebelle mm-hmm. ku mën loola man li mm-hmm. te loola ñu lañ ko di woon jàmm lañ ko jubóol te ku ne xam na ne rebelle yi xam nañ. ci maanaam yow monsieur le ministre li nga gis mooy. jàmmi réew mi. Mhm. ak moytu la xew xew euh, Soudan. Mhm. Euh, xewoon Côte d'Ivoire xew senegal mhm. maanaam jar na amnistie ñi ñu war a amnistie jar na ñi ñu war a génn si kaso bi ñu génne leen ci kaso. wallaay wallaay euh, Abdou Khadir Abdou Khadir jàmm dara wéccu te dafa am loo xam ne amul njëriñ xamatiñ ne tëj nit kaso amul amul njëriñ. Hmm. amul njëriñ ki ñu tëj amul njariñ ki leen tëj. parce que koo tëj di nga ko jox mu lekk. di ko jox mu naan di veey santeem nangam ak nangam. xaw xam yokk sa boppi noonu te làngu noonu du tuut ku mer dem ci li ma mën a xam daal mooy ban ñëpp lay wax muy état mu citoyen simple parce que ci réew mi laa bokk xam naa ne bu jàmm amee maak sama njaboot ñu bokk ci bu ay amee nu bokk ci. kon yow da nga jàpp ne fi Sénégal toll warut a nekk dialogue politique rek. déedéet parce que du jàll du problème politique rek. am na yeneen problème yi nekk ci réew mi yoo xam ne mën nañ cee wax mën nañ cee wax pour que ñu tëral ko ñu ñu regle ko toujours nga dégg ay revendication ay nit yoo xam liggéeyuñu wala kër yu tas nangam ak nàngam mais loolu war nañ koo teg ci taabal ji lan moo tax usines yi di tëj. mal gouvernance waaw loolu yëpp dañ ko waxtaanee bu fekkee nit ñi dañoo jóg rek pour defar ku ne war naa nangu ne man lii may defar naa ko seetaan. nga nangu tam ndi nit ne la lii ngay def jaaduwul nga bàyyi ko. waxtaanee secteur privé bi. waaw bu fekkee ne réew moo lu ñor xaw ma nag bu fekkee ne nit ñi dañuy wax rek réew mi lu ñor te fekk ne seen intérêt la ñuy topp. léegi léegi monsieur le ministre léegi opposition bi ñoom dañoo jàpp ne. Mhm. même société civile bi ñoom Alioune Tine. Mhm. nee nañu président Macky Sall ñoom ànd nañ ci dialogue bi. Mhm. ñoom allentine Tine société civile mais euh, il faut que mu teg ay conditions maanaam par exemple kay ñi ñu jàpp ne dañoo wax seen xalaat. ñu dugal leen ci kaso bi ak yu loo xam ne waxum wàllum politique la wala nga bind sa page Facebook maanaam ñooñu euh, ñu bàyyi leen au moins mais nit kii mënoo jël ay nit ñu bari dugal leen ci kaso ba pare di woote jàll ñoom loolu mooy seen ko ñooy li ñu wax am na xam nga ne li ñuy wax TDR thème de buy waxtaan di am dinañ ne ci lii ak lii ak lii la ñuy waxtaan mais nit ñi ne damay waxtaan rek nga ne ko da ngay toog déglu ko ne ko waaw yow bu ñuy waxtaan ci lan la ñuy waxtaan. mooy la lii ak lii bu fekkee ne am lu ci bokkul nga ne ko yokk ko ci ah, waaw su bëggee moom te waxtaan ko si yokk bu fekkee wax waaw lii laa bëgg nu waxtaan xam nga nit doo ko woo rek nangam déet da ngay wax ne kat nangam terme de référence mooy noonu kat nan toog bëgg naan wax ci constitution bi ba noonu wax ci fichier électoral bi parrainage bi ñi xam bu boobaa yow boo liiree terme de référence yi ne ah man kat lii la ma yaakaar ne ci la ñuy waxtaan nekku ci buñ ci yokkal nangam ak nangam ne ma bokk loolu mën na ko dégg waaye duma dem parce que nangam ak nangam kooku dem du du indi kii woote dialogue tam ma ñaan na génne terme de référence ci lan la muy wax bu ko defee ñi mu ko séqal gis na kat point nangam ak nangam lañu wax ñu ne ko yokk ci nangam bu ko mënee yokk yokk bu ko mënta yokk ñu xam ne que ko du am waaw mais mais mais monsieur le ministre woote dialogue Euh, yow génneegu ay termes de référence taxaw ne ko gedd sa yaay ay aye ce que loolu euh, gis-gis boobu nga ci am. waaw xam nga euh, Abdou Khadre bi ñëpp ay doomu aadama lañu te kenn du mat. man jàpp naa bu doon yow doo ko waxee noonu. doomu aadama kenn matul bu doon loolu yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy gën yu mbindeef nga xam ne yàlla la daal waxal kon yàlla du ko sant nay waxtaan ak ñi mu ñi mu làngal. kenn matul moo tax li may wax sànq maye la wax ju bari baaxul parce que wolof dafa ne wax bu baree génne asaka mais bu ñu jàppee loolu nit ki boo jàkkaaroo xam ne doomu aadama ngay jàkkaar loolu mën naa juum bu juum nga def ah yow kat waroo woon a waxee nii waaye bu waxee nii nga wax safaan ba aussi jàmmaar am déedéet da nga xam ne ah man de yaakaar naa ne euh, boo bëggee jàmm man ngaa waxee nangam ak nangam ak nangam en tant que doomu aadama na seet boppam nekk matari doomu aadama peut-être moo waxee nangam moo tax mu defee nangam man loolu laa gis ci doomu aadama yi loolu laa gis ak ku man di doon nag sëriñ seeg ñëpp dañuy am ay entourage. bu fekkee mais Mousselou est-ce que président ma ngi lay déglu par rapport sa discours bii nii. wute ak euh, discours bu bare ba ci waa benn xëy na moom may déglu loolu nag mënuma koo garantir mënuma ko garantir mais. non toog ak président euh, ah kay parce que comme waxal maa lay sànq séminaire bi ñu amoon bennoo wax naa ca recevoir ñu suñ suñu su coalition xam naa nañ ci wax après wax na xam xam na ma aussi xam na ma euh, comme ni ma ko waxee barki démb ci émission nee naa. Euh, di déggoo moom ak nangam ak nangam def bon defuma ko daal préoccupation su fekkee ne soxla na ma incha allah dina dina wax ak man mais. du tere nag fi ma toll euh, di wax loo xam ne lii euh, luy jariñ réew mi la euh, bu ma sañal aussi ñëpp nga xam ne ñii ñoo yore li nga xam ne jàmmi réew mi parce que yàlla ginnaaw yàlla aussi am na ñoo xam ne yu bari seen loxol nag kon bëgg naa daal ñuy waxante daal. ñuy waxante daal nit ñi di waxante seen biir. waaw mais monsieur le ministre Pape dafa am ñoo xam ne. Mhm. ci kujje gi ñoom nee nañu. Euh, li ñu bëgg daal mooy ñu libéré ñi nga xam ne ñooy détenu politique yi. Mhm. beneen bi xalifa euh, Sall moom am na ñu ànd pour ñu amnistie ko moom ak euh, ak Karim Wade. Mhm. détenu politique yi ñu ñu libéré leen. Mhm. am na sax ñoo xam ne ne nañu journaliste yi ñu jàpp aussi ñu ñu libéré leen. wut benn personnalité bu neutre boo xam ne moom mooy organiser li nga xam ne aussi moom mooy mooy élection yi. ñi nga xam ne aussi jàpp nañ ñoom kana ñoo ngi leen di bundaxataal pour ñu bañ a bokk. Euh, maanaam ñu arrêté ñu arrêté loolu pour mën a dem soobu si euh, soobu si ko xam nga Abdou Khadre loolu wax la yàlla lu ma na koo dégg waaye du ma dem kooku laay bañ a dégg. du ma dem du ma dem bokkuma laay bañ a dégg man nga ne ah man de d'accord naa parce que réew mi ñoo ko bokk. allah kulli alin dem guerre mondiale moom mu ci table ak feneen ak feneen Soudan yaa ngi dégg dañu mu ci table. Euh, Côte d'Ivoire bii may cité souvent dañoo mujj toog waxtaan kon waxtaan lu nekk mën naa nekk ci biir ah man kat d'accord naa d'accord parce que réew mi noo ko bokk waaye damaa bëggan bala nuy waxtaan nangam ak nangam te kitaabal suñu point yi laa bëgg balay muy toog ci taabal wala bu ñuy toog ci taabal point yii laa bëgg nu waxtaane ki nga jàkkaaru dana la ci wax dara kon loolu ñuy génne mën naa génn ci ci terme de référence yi mën na cee bokk puisque lépp luy indi jàmm moo gën kon ku ci nekk nag la nga naqar ne lii yaakaar naa ne mooy tax jàmm am nangam bu ñu ko defee ak nangam bu ñu ko defee ma mën a waxtaan jàmm am nga déglu nag man daal li ma bañ mooy demuma jalo kooku daal moom laa mënta d'accord ku ko def nag sa sa responsabilité la waaye man daal dinaa dem waaye nag taabal ji nan teg nangam ak nangam ak nangam lu waxtaane lu nu mënta waxtaane amul. maanaam yow kon da jàpp ne maanaam dañuy waxtaan balay kaawoo di am wala musiba tamit bu amee maanaam di taal waxtaan mënta ñaaw kon yow daal ak alaakulli aal waxtaan mënta ñaaw. waxtaan dina am ak nu ma di demee Abdou Khadre am na lu bari loo fekk wala loo dégg. ku la noonu Gbagbo dina duggaat Côte d'Ivoire jàkkaarloo Ouattara ñuy wees échanger tuuti wala nitu boo ak nitu Ouattara dañuy waxtaanal kon nga weddi ko ñoom defe naa ne fañ jaar bay si fii dootuñ ci gaaw a dugg loolu nag laa bëggul mu dal Sénégal. léegi léegi xeexoo ba gongi ko soog naa dañuy toog di waxtaan te waxtaan mën a am léegi bala loolu di am. waaw. tey tey yow da gis ne euh, mais beneen bi aussi mooy euh, président Macky Sall man dama jàpp ne euh, monsieur le ministre dafa am njuumte boo xam ne def na ko ci ci woote bi nga xamante ni tey woote na ko le fait mu ne ku bëgg bokk ci élection yi da ngay ñëw participer si dialogue bi am na ñoo xam ne seen gis-gis mooy que dafay bëgg a da leen di bëgg a chanteloo maanaam mbirum chantage la si la si bëgg def est-ce que communication boobu ak ah, moom dégg nga ko moom ku bëgg a bokk élection yi moom. wax yàlla moom. parce que du moom mooy toog rek. ne di woon di li ma dégg daal mooy di nekk ku bëgg. bokk. waaw ku bëggul nag xam nangam ak nangam. ku bëgg a bokk ñëwal ci ci dialogue bi. ah mais nag du ku bëgg a yi kooku moom. Euh, tekkiwul ne ku bokk dialogue doo bokk élection man de comprendre ma noonu. ah ni nga ko comprendre mooy ku bëgg a bokk si dialogue bi. voilà voilà voilà. laa dégg waaye nag élection yi moom wax dëgg yàlla président Macky Sall mooy toog rek ne diw ak diw duñ ci bokk de ko ko mais mais léegi F24. mu jiite ay euh, lu ay téeméeri kuréel ay partie association seen ñoom. ñoom Aminata Touré Thierno Alassane Sall Bougane Gueye Dany Mamadou Ibra Kane Déthié Fall euh, Ousmane Sonko ñoom nee nañu dialogué wuñ. demuñu mhm. si taabal bi waxtaan ndax munoo jël. ay nit dugal leen ci kaso bi ak ak yelleefu doomu aadama yi ñu gis ne aussi rapport euh, d'état américain bi fi génnoon ak ak yelleef dañ ko daal di salfaañe rapport euh, ñi nga xamante ni ñooy Reporters sans frontières journalistes yi gis nañu Sénégal deltu na ginnaaw euh, lu bëree bëri ñoom ñu jàpp ne duñu duñu waxtaan lan moo ci sa xalaat. waaw booy li ma la wax laag rek du lu waxtaan moom man wax dëgg yàlla ah ku nekk nag yaa yër sa responsabilité yaa xam. mais du ñu waxtaan moom ah, wax dëgg yàlla man euh, du sama gis-gis. du gis parce que lu man di am lu man di am euh, soit dañu ko waxtaanee léegi soit dañu ko waxtaanee ëllëg waxtaanee ko ëllëg nag fekk ay rëq-rëq yu bari am na. am na Sénégal lu bari yàqu ci. Mm-hmm. lenn loo xam ne ko mën a defar. parce que bakkan kenn mënu koo remplacer. Mm-hmm. yaakaar naa ne ak lu mu mën di doon may na koo teg ci taabal yi parce que Abdou Khadre ma toog yow ci taabal nuy waxtaan taxul ne li nga wax lépp ma d'accord ci. la. mën na noo waxtaan ba fin nga ne ah man yaakaaroon naa ne lii may wax kii may waxal dina ci d'accord waaye nag loolu bu mënta nekk nag ah nu tàggoo nii ku nekk def la la doy waaye fekk na toog ngeen toog déedéet su su su woot Macky Sall bu ñëwee rek wootee rek la mu bëgg lépp ci la ko nit ñi fekk yoo ko ne moom xalaatul loolu sax xalaatul loolu kon nañu jël temps toog waxtaan waxtaan mais mais euh, Mouslim ni ma lay déggee dafay mel ni dangaa gis ne euh, dafa am tension politique bu euh, ndax yow sànq nee nga yàgg nga ci politique lu bëri fekk na la fi mu mel ni danga nga xaw a tiital Sénégal da nga gis ne tension politique bi dafa jéggi dayoo. mais Abdou Khadre yow wax nga ko sànq bu fekkee ne nit ñaa ngi xam nga déjà am na songo bu fi am boo xam ne ci mars 2021 la xaw ma yaakaar naa ne. waaw ba ay doomu aadama dee temps yi passé am na ay événements yu fi def yoo xam ne am na ñu ci gaañu. Hmm. am nañu ci décédé loolu nga yaakaar ne mën mënta jëm kanam bu fekkee ne nii ñuy doxalee dong la ñuy doxalee. Hmm. nga yaakaar ne kooku amul gisaani. Hmm. lu leer la loo xam ne loo gis xam ne lii nu nekkee ku nekk di fëgg sa mbagg ku nekk di wax ñii leen jàpp ñii di wax ñu nangam ak nangam mais loolu wa waaye gàtt gàtt xalaat xam ne que fa muy jëm baaxul. pourquoi ñuy toog ba nag muy ëpp lii wolof dafa ay du tuut. waaw ba pare tamit euh, ministre ñoo ngi jëm ci euh, ñaari procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang ak lu jëm ci mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko ñi mu àndal ñoom jàpp nañu ne dañu ko bëgg faagaagal bëgg ko éliminer ngir mu bokk ci élection présidentielle 2024 est-ce que yow ci sa gis-gis sa analyse est-ce que Ousmane Sonko buñ ko gàllankooroon mu participer ci mille vingt 2024 ndax jàpp nga ne Sénégal dina ànd ak ko daal ndax ñu si mel ni euh, société civile bi ñoom Alioune dañu jàpp ne soo ko éliminer senegal mën na am ay jafe-jafe est-ce que bokk nga ak ñoo ñu gis-gis. xam nga Sénégal euh, man toujours damay wax nekk bëgguma di euh, tënk mbir ci nit kenn nit puisque muy Ousmane Sonko ak nu mu day Sénégal kenn la Sénégal ak millions de Sénégalais nekk fi. kon bu ñu tënk rek ne mbiram Sénégal dafa tënku ci benn nit. mais ay nit a ko topp. muy président ak ñeneen tënkuwul ci kenn ci ñun ñëpp la tënku ay nit a ko topp kon li ñuy war a wax mooy lan lay wax ba Ousmane sonk en tant que citoyen sénégalais mën a taxaw laaj réew mi comme ni ko ñëpp di laaj man loolu moom euh, mais loo gis doxalin la. doxalin doxalin la. parce que euh, man damay wax toujours xam nga man mosoo may dégg ci médias yi may wax affaire aji Sarr ak kii mosoo ma cee dégg. parce que pour man jàpp naa ne ñaari sénégalais lañu te Abdou Khadre boo deman la altine ji ñuy jëm nga dem tribunal di nga fa dégg nit ku ñu rey wala nit ku ñu nàngam ak nàngam ñu ngi leen di àtte te benn ku demul tribunal doo ko yëg. mais pourquoi pas ñee di ñaari sénégalais tooñante ñoo xam ñoo yàlla. pourquoi ñu bëgg Sénégal yi yëpp ñu booyee leen ci mbir moom loolu d'abord moo jaaru ay sénégalais lañu def ñu fi lu mës nit mës a def puisque rey nañu fi nit bëccëg gaañ nañu fi nit. ah defuñu lu mës a def. mës a def pourquoi nag ñu bëgg leen defal loo xam ne lii mësu fa am ma ne problème bi yëpp loolu la. nañu delloo si affaire bi ci loolu ñaari sénégalais lañu suñu leen woo tribunal nañu dem. muy état bi di pouvoir état muy état di pouvoir mais liñ ci bëgg ëmb lépp. politiser ko. ma baaxul. puisque li ñuy dépensé ci euh, waxuma la liy yàq mais. nit ñi saa saa yu coow amee nit ñi tëj seen i boutique wala ñu yàq boutique wala ñu yàq nangam ak nangam. mais loolu fu muy féet ñii di dee ñii di dee. mais loolu mën nañ koo moytu mën nañu ko éviter mën nañ ko éviter. lañu koy éviter mooy lii ma la wax allah kulli alin il faut que nu toog en tant que sénégalais nu jàkkaarloo waxante lu jaaduwul ku ne xam na ko. bàyyi noonu lu jaaduwul ku ne xam na ko. ok lu jaaduwul ku ne xam na même boo ko dee def mu jig la danga xam ne lii jaaduwul mais il faut nu toog nag sénégalais am fit suñu diggante ah yow kat lii nga def lu jaadu lii nga waxaroo ko wax état lii nga def nangam ak nangam moo tax barki dem maa ngi gis benn. Euh, vraiment affaire bu ma neex waxu sëñ Cheikh Tidiane Tiwaawan la ko doon waxee muy wax kilifa diine yi ci jamono jooju am am na coow li fi mu ne kilifa diine yi ñun ñëpp dana war toog wax ak nan toog ñun kilifa diine yi nag parce que lépp suñu njaboot la. Hmm. leen def leen nangam ak nangam ak nangam ku ko jalgati ñu xam ne yaa ngi defante koog yow. mais lu mel noonu amoon na fi jamonoy euh, Adji Sarr. mais lool te. jamono yi Adji Sarr sëñ bi yónnee woon na. waaw très bien mais kilifa diine dajewuñu dajewuñu man loolu d'accord naa ci kilifa diine yi nañu wax jóg waxuma la ay porte-parole nangam ak nangam mais. kilifa diine ku ne am na xalifa. waaw mais euh, mais monsieur le ministre tamit am na loo xam ne dañu ko seetlu gis nañ ne opposition bi euh, am na si ñoo xam ne vraiment ñoo ngi def seen euh, activité politique di def ay tournée mais gis nañ ne Ousmane Sonko buy def tournée dañ koy faral di topp léeg-léeg jàppante daf ci faral di am aussi est-ce que tamit loolu waruñ koo mën a moytu. gis nga Abdou Khadre man nekk naa opposition nekk naa opposition defe naa li nekk opposition sax moo ëpp li nekk ci <laughs> ànd naa ab lay Wade jóge naa fa opposé waat ko en 2012 ay ati ati at kon xam naa opposition li ci nekk musuma d'accord ci ñuy gàllankoor kenn koo xam ne kii yaa ngi def li nga xam ne yoona la ko may. di opposé ma ci kenn. booy opposé am na façon booy doxale état bi aussi am na lu mu warloo ak ñi nga xam ne ay citoyen lañu di exercer seeni droit mais nag nañ seet ku ci nekk est-ce que la nga war a def yaa ngi koy def mënuma loolu laa xam état bi daal am na loo xam ne lu ko féete kaw mooy la constitution am na lu may doomu aadama yi defar mën ngaa def nangam mën ngaa def nangam waaye am na lu mu tere itam waroo def nangam waroo def nangam bu ko nekk tënkoo ci loolu yaakaar naa ne ay wu bari na mën naa ñàkk. jërëjëf euh, monsieur le ministre Pape Diouf euh, moom la ñu invité tey ci rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mi mu am euh, samedi bu jot quinze h jàpp 16h mooy njiitul parti bi nga xam ne moo tudd MDR mouvement pour la démocratie et la république mais monsieur le ministre dafa mel ni aussi am na benn jafe-jafe boo xamante ni tey kujje gi société civile bi ñenn si ñoom ñoo ngi koy wax mooy troisième candidature président Macky Sall ñenn ñi jàpp ne dafa nekk ci dafa nekk ci xelam. Euh, troisième candidature président Macky Sall bi ñuy ngawta ngawtee di wax yow euh, ban gis-gis nga ci am. xam nga dafa nekk xelam kooku dafa garaaw naan diw nangam moo nekk xelam man ñi meñu ma loolu man <laughs> man lool euh, moo tax léeg-léeg ma dégg naan seneg nit ñi naan sénégalais yi nee nañu. Mm-hmm. dara gënu ko garaaw. boo demee téeméeri sénégalais nga xam la ëpp te yi di ay millions nga bëgg ne sénégalais yi nee nañu. Mm-hmm. dara gën a garaaw tam ne nit kii de lee nekk ci xalam. man dañuy. daa man dañu ñëwee ñu mën man nga nag ne lii muy def de niiru la ne nangam waaye lii hmm. nekk ci xalam nangam ak nangam te euh, euh, am na loo xam ne euh, mënta nëbbu te naam bis ma ne loolu lépp am na loo xam ne lii may na ko waxtaane hmm. ngeen yaakaar ne président Macky Sall bu wootee woon tey problème ba mënta nekk sur la table. problème waaw mënta nekk bu boobaa dana ci mbax moom lu leer waaye li ma xam ñun ci ñu ñuy doxal ñun suñu su coalition ak ci li nga xam ne moom la ñuy wax ñun ci biir Benno Bokk Yaakaar mooy candidature Benno ko Yaakaar waa Benno ko Yaakaar ñoo koy waxtaanee. te waxtaanee te waxtaanee guñu ko. ñun nag suba gu bërki démboo ci mujj te defe naa sax amaat nañu beneen daje boo xam ne bi ci fan yi ñun suñu su coalition waxtaanaat ci mbir moomu danoo bëgg ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu toog munuloo nag ni mag président Macky Sall tey wala suba waaye nag nun li ñuy ñaan mooy Benno Bokk Yaakaar toog mbir moomu ñu waxtaan ci comme ay nawle nanu ay alliés lanu te nanoo bëgg a gañe allah kulli al lu mën di am il faut ñu waxtaanee ko ci biir gan. fu ngeen teg seen tànk fu ñu teg suñu tànk kooku moom ci loolu la nekk. te mbir mi aussi leerul ci ci ñi ànd ak président Macky Sall. waaw loolu lépp mën na koo leeral parce que man euh, damay dégg nit ñi daal ay interprétation xam nga man euh, Abdou Khader euh, juriste la de formation. Mhm. je suis titulaire d'une maîtrise en en sciences juridiques. Mhm. droit administratif l'université Dakar. donc maanaam naa di interpréter comme ñëpp. tu as vu que ay agrégé. sax ñu ngi werante ci article boobu mu ci jub mënuñ ci juboo kon di ci waxtaan interprété nangam a nangam lañ naan dolli xar mi karaw la. yokku joote yokku la yokku joote la. solution bi. solution bi mooy ñu toog waxtaan. mais sànq nee nga suñu constitution bi euh, dafa mel dafa desee leer. bind naa ko wax naa ko te yàgg naa koy wax. am na benn article ma bu ñu def si danaa leen man ñi ma mettre en cause sax mooy les rédacteurs de la constitution. puisque mënu ma comprendre. li boroomi xam-xam ci Sénégal ñi li làkk tubaab ci Sénégal muy ay littéraire ay juris ñuy bind ab article kenn di ci werante kooku jaaduwul am na lu ñu ko bindee waxam bu ñu ko ne bindee am laam-laam li amul laam-laam li loolu laa bëgg na ëllëg si bu ñu jógee ci lii article constitution article euh, code électoral nu bind ko noo xam ne nii dina leer ci bopp ñëpp. d'accord mais yow euh, ministre tey. Euh, président Macky Sall dafa am ñu bokk ci mouvance présidentielle euh, wala waa APR ñoom nee nañu ñenn si ñoom nee nañu moom mooy seen candidat 2024 ndax yow loolu ngay wax. déedéet. doo ko wax. man duma ko wax parce que moo ko war a waxee jotul ña muy wax nag ñoom la engagé man daal jàpp naa ne candidature Benno Bokk Yaakaar ci biir Benno lañ koy waxtaanee terewuma nag ku nekk. parce que man parti laa yor mais mosoo dégg sama waa parti wala man mii di ci wax. waaw mais monsieur le ministre 2012 2011 fi la ñu fekk. nga bokkoon si ñu doon opposé Ablaye Wade ci troisième candidature bi. absolument mais nag xëyuma ci mbedd mi <laughs> dañu ko waxtaanee ba jóg dem ci mbedd mi. mais taxawaay bi ñu samoon 2011 mais ñoo ngi koy xaar nga am ko. 2000 waaw boobu boobu egg gunu xam nga egg gunu fa. waaw mais euh, moralement euh, monsieur le ministre da nga doon tàggu sa kër. waaw seen kër euh, monsieur le ministre da nga doon uh-huh. tàggoo seen kër. 2011. Uh-huh. Uh-huh. sa njaboot na leen maa ngi dem place de l'Obélisque. ñu ne la loo fay wuti nga ne damay xeexi troisième candidature Ablaye Wade. man d'accord naa ak yow Abdou Khadre mais xam nga man juguma euh, Njorondaay man dong dem foofu. waaw dafa am kuréel yu ma bokkoon ñu waxtaan ba d'accord ci loolu. ma li ma la wax. waaw dama bokkoon ci kuréel. kuréel bii ma bokk nag problème boobu wax guñ ca. ker buñ ci su coalition bi ak coalition benn bokk yaakaar. ok kër bu nu demee ba toog ci ba wax ku ci nekk xalaat boobaa nag ku ñu jël sa responsabilité mais 2011 effectivement ci laa bokkoon waaye nag damaa bokkoon ci kuréel yoo xam ne dañoo waxtaan ba ne juboo ne nañ wu ci lii. waxtaan boobu nag amagul. tey par extraordinaire kuréel yooyu buñ si àndee yow décision personnelle ndax di nga ko jël. ah booba nag Abdou Khadir boobu di nga ma dégg. <laughs> dinaa la dégg ci lan. di nga ma dégg ci la may xalaat. Ah. man moom Pape Diouf moom. woo xam-xam ne lépp lu muy xalaat bu ko waree wax fa mu ko war a waxee kooku mu awma ci lu may ragal lu may ti parce que yàlla dong laa gëm wax naa sànq sama wax ne du ma wax nit du ma wax pour lu neex nit lu neex nit rek. Mhm. wala lu naqari nit déedéet damay wax li ma gëm sama diggante ak yàlla nga xam ne bu ma tëddee nelaw. d'accord mais mais euh, avenir u Benno Bokk Yaakaar euh, ndax sa xel teyu si ak euh, ni muy doxee. si parce que séminaire boobu ma la wax ñu def. Eh, siège au mois de novembre def nañu point de presse pour montrer que Benno dañ ko war a réformer te même discours boobu laa tenir ci bi ñu demee benn euh, séminaire Benno Bokk Yaakaar. devant le président ba président ku ne xam ne ne am na rëq-rëq ci biir parce que élection yi ñu génn élection euh, locale ak élection législative ku ne xam na ne euh, danoo dellu ginnaaw la tax nu dellu ginnaaw nag bu nu ko waxoon teewul mais ku ne xam na. nan fexee nag ba lii nu jëbal moom loolu la doon wax ñun nan fexee ba am candidat nan fexe ba bennoo am doole. la koy def nag mooy nan seet li ko rëq-rëq yi ci biir nu dindi ko bañ a raayante ko waxtaane ko loolu moom wax nañ ko loolu laa gëm loolu la suñ su coalition aussi loolu loolu la wax. Mm-hmm. donc bennoo ko ne xam ne ne effectivement na war a dox at yi doxu ko moo tax li nu gis législative ak élection. municipal yooyu xam nañ ni effectivement dellu gannaaw am na euh, euh, ay bari nag gis nañ ci ay gis-gis yu bari ci biir waaye nag la ñuy def mooy toog waxtaane ko ba nan la ñuy def ba benn taxawaat tem ko jërëjëf euh, monsieur le ministre Pape Diouf réew mi FM ngeen di déglu léegi yow monsieur le ministre une question précise ndax yow d'accord nga ñu amnistie Karim Wade ak euh, Khalifa Ababacar Sall ak tamit ndax d'accord nga ñu modifier code électoral article vingt trente bi nga xam ne bu buñ la tëjee ñetti weer amande la yenn amande yi doo mën a bokk ci élection présidentielle est-ce que d'accord nga ñu modifier ko ak tamit ndax d'accord nga ñu amnistie ñaar ñi ma la wax. wax naa la sànq benn euh, article bu ma defoon ci Facebook ci bi ñuy def dialogue 2019 damaa jëloon exemple ci ñaari exemple mooy bi ñu am euh, amnistier euh, les les rebelles. loi Ezzan plus récente en 2002 an xam naa ñoo xam ne nañu day poursuivi devant les cours d'assises ñu amnistier leen dama ne loola ku ko man pourquoi pas bii comme mën nañu amnistier ñu rey nit ñu leer mais pourquoi pas ñii. loi d'amnistie yàgg na fi lu euh, Dia ñoom xam ngeen ko 91 ak les rebelles xam nañu 2002 ak les les la loi Ezzan xam nañ ne am na ñoo xam ne dañoo rey wala ñu def lu ko niru bañ leen war traduire en mais loi si moo leen ci jële kon man d'accord naa bu fekkee loi d'amnistie bi mën naa dindi loo tuumaal nit yoo xam ne ñi dañuy sénégalais mën a liggéeyal réew mi mm-hmm. jàmm am d'accord naa ci d'accord naa ci moom. loolu mooy sa position sa position. d' accord léegi euh, monsieur le aussi gis nañu ne euh, jamono ji tembe euh, arrestation yi dafa dafa bëri lool maanaam ñi nga xam ne ñoo ngi leen di jàpp di leen dugal ci kaso bi bëri na ci opposition bi mais rawatina parti Pastef arrestation yooyu lan moo ci sa lan moo ci sa xalaat ak lan moo ci sa gis-gis. waaw xam nga wax naa la quand jàng naa droit. moo di ne que loi aussi dañu ko def pour ñu di ko appliquer. pour pour app ñu appliquer ko. ci ñëpp ci ñëpp. kon mënumaa tëba tëb parce que du ma juge duma leneen naan di waruñu ko arrêté war nañu ko arrêté li ma xam daal mooy citoyen bu nekk lay sa waru la ko may nga nekk opposition nga nekk pouvoir nañ la ko may citoyen bu jaar di yoon itam. jàmmaarloog ak ak ak euh, yoon. Mm-hmm. yoon def la la ci war sans mu xool ndax dangaa weex wala dangaa ñuul man bëgguma ñuy arrêté kenn bëgguma ñuy tëj kenn bëgguma ñuy bundu xatal kenn waaye bëgguma aussi kuy salfaane li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy kam réew dafa am yoon. Mm-hmm. mais ku moom moo am ndey ak ku moom mu amul ndey la ñenn ñi. mosuma cee d'accord dégg nga li ma la wax dama ne si Sénégalais laa wax. bu wàcc yoon ak foo man di far dañ la yoon teg la la war lañ ci wara ak foo man di far kon man ay kumbaam de ma ne xaw ma ko parce que man mii àtte nañ ma budul benn tëñ nañu ma kaso te taxul maa ngi Sénégal maa ngi Sénégal taxul ma ŋàññi kii parce que damaa jàkk jàpp xëy na la ma def moo tax ñu tëñ ma même bu fekkee am naa ci xalaat waaye nag bëgguma daal bu bundaxatal kenn parce que daa far fii ñuy bàyyi kenn muy def lu ko neex parce que daa far fi kooku moom d'accord ma ci l'islam sax nangu ko te man damaa gëm l'islam mais mais am nañu ñenn ñoo xam ne gis nañ ne boo faree nguur gi euh, mooy loolu xam nga sénégalais ku nekk la ngay gis man daal li ma la wax moo di ne man d'accord ma du ma sàmba ma dem waaye d'accord ma nit parce que dafa far fi bërëb di jalgati ñu di ko ca bàyyi loolu d'accord du ma ànduma ci kenn nangu ma itam nit jalgati parce que tout simplement daa parti opposition yi di ko bàyyi déet déedéet dama ne yoon dañu ko fay def dafa ko pour ma sàmba pour ma demb te lii ñuy def lépp ëllëg si biir dañoo war a jàpp ne ëllëg si biir dañuy jàpp jàmmaar suñu borom war nañ koo sédd waaye avant ni yegg suñu borom sax dañuy sédd ëllëg parce que ñii di àtte tey ëllëg si biir mën nañu fee ñeneen àtte di leen àtte mm-hmm. ma li wax kon ku ci nekk la ngay def na nga ko seet natt ko ci sa bopp natt ko ci sa jaboot mais ñu gis euh, monsieur le ministre Aminata Touré léegi. Mhm. ne xool lool ak euh, Ousmane Sonko rawatina kujje gi te mu bokkoon si yéen. Mhm. Euh, taxawaayu Aminata Touré ak opposition bi ban gis-gis nga ci am. waaw yoon cest à nit ku nekk moo xam la la muy def moo koy xam da nga ànd wala nga bañ cee ànd. waaye toog naan diw li mu def waru koo def man aw ma responsabilité. am na ci droit am na ci droit. sénégalaise la. gis na que ne yëngu politique am nii la mu di ko doxalee noonu ah sénégalais yi lañ ko seqal sénégalais nañu xam ndax ëllëg si biir ñoom dañ leen fal ci loolu ñoo xam. mais àndal ma sàmm wala àndal ak ma demba ñoom ku ci nekk sa responsabilité parce que man kenn du ma dicté li may def man kon dama koy seet sama bopp. man nee naa benn waaye foo ma fekk ma toog xamal ne maa fa bàyyi sama bopp. Hmm. man naa juub nag waaye nag kenn du ma forcer di ma def loo leen. loolu laay sant ci moom lay séddu keneen aussi dama yaakaar ne ku ci nekk am nga responsabilité am nga sa gis-gis bu la neexee nga am ànd ak ma sàmba wala ànd ak ma demb kooka yow dong la engagé. Hmm. waaw d'accord mais monsieur le ministre ñu jeexal dañu gis fan yële passé dafa am ay partenaires financier techniques yu Sénégal yoo xam ne amal nañu fi benn réunion ak euh, gouvernement bu Sénégal mën nañ ko waxee noonu ndax premier ministre ma nga foon ak euh, ministre de finance ministre de l'économie ministre de la justice ministre de l'intérieur ministre des affaires étrangères ñu waxtaan euh, partenaires techniques yu Sénégal yooyu wax leen na leen apaiser leen. Euh, élection yoo xam ne yu ànd ko dal wax nañ leen aussi que fonds Covid 19 bi euh, ñu leeral ko surtout fonds boobu euh, yow ban gis-gis nga ci am. mooy li ma wax rek sànq man daal lépp luy lënt-lënt ci mbir la moo xam ne ci kayit la nekk parce que ay milliards kenn du ko joxante walla di ko. fal déedéet ci kayit la jaar dugg ci ay loxo loxo yee mu dugg foo ñu ko dugal nañu ko leeral jàmm ne ñooy man loolu nga d'accord yow man loolu laa d'accord xaalis daal bu la ko joxee te muy xaalisu réew mi foo ko dugal war nga koo waral leeral sénégalais yi ñu xam ne ko fii ko dugal waaw néew ma ma sàmba def na wala ma dem waaye daal li ma d'accord mooy xaalisu réew mi daal xaalisu réew mi la surtout Covid bi nga xam ne vraiment musiba la woon moo xam ne mii mu am nuy seet lan nuy sàkkoo ba saafara ko kon xaalis bu ci dugg war nañoo leeral fu mu. d'accord waaw waaw waaye. d'accord euh, d'accord euh, monsieur le ministre waxtu wi euh, ma ngi jeex léegi ban message moom ngay lancé ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw ñi rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci sa parti politique. waaw li ma leen di lancé daal mooy euh, li ma gëm yaakaar ko ci senegal mooy naka senegal ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ne am nga ci wàll boor surtout ndaw yi ñu gëm ne que réew mi allah kulli alin kenn du jóge ci bitim réew duñu ko defaral lañu koy defar nag ñi dollu ci jàng nañu jàng ñi toll ci liggéey nañu fonk seen liggéey te gëm ne que ay sénégalais koy yor. bu nu bàyyi kenn yaakaar ne euh, joolaa bi wala tukulóor bi wala nangam nag déedéet ñun Sénégal ñëpp noo war takku pour defar Sénégal ndaw ak maga ci waaye ndaw yi nag bu tolloo ci jàng nañ jàng buñ ca jógee xool fi nga xam ne ah nit ñu baax ci réew mi parce que nit ñu baax am na ci réew mi ñuy seet nag di roy ci mag ñu baax ñi seet fu ñuy seet seen tànk pour que ëllëg si bi bu fi mag ñi jógee Sénégal bañ a taxaw mais au contraire jëm kanam. moo daal lay ñaan ah di ñaan jàmm rek Abdou Khadre ci réew mi parce que jàmm moo moo gën lépp lii nuy wax lépp la koy maye mooy jàmm bu jàmm amul kenn du tal mais est-ce seen coa seen sous coalition bi taxaw ngeen pour pour discours yi ne ngeen wax ko askan wi bu baax a baax xam naa fan yi sax di ngeen dégg parce que noo ngi waajaat benn waxtaan boo xam ne suñu biir di ngeen nu dégg parce que am na nu xalaat nu itam ci réew mi que ay wax naa la ay chef de parti ci nekk yu am solo ay euh, citoyen yoo xam ne aussi am na ñu parcours xam nañu ci yëngu yaa ngi yëgg ci réew mi donc ñu tam dinañ jàkkaaroog sénégalais yi wax ak ñoom que nag euh, euh, loolu ñëpp la war lépp luy defar daal ñëpp ci war a taaw kon daal may ñaanal ko rek Abdou Khadre di sant bu baax a baax ci waxtaan wi aussi jërëjëf jërëjëf euh, monsieur le ministre Pape Diouf mbokk yi mooy njiitul parti mouvement pour la démocratie et la république moom la ñu invité woon tey ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi ngeen jëf jàmm ak jàmm. mbokk yi ngeen jëf jàmm ak jàmm. mbokk yi ngeen jëf jàmm ak jàmm. mbokk ngeen jëf jàmm ak jàmm. mbokk yi jërë ngeen jëf jàmm ak